كل ما يتوقعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكو تلسبكتاتر اتو مودو تي في يرنتي لي 3000 دال حاج عبد الفات نين بروم تايبا نيغي وون تي تيم بو ام سولو با تاي تي ويور مبكي نيغي يمون تي خال خما ديغنتيم اك ويجورم لان مولن بوله وون موي خال خما دا سخنا mu dem ba melni soxna si moko gënal waajuram wayjur bi génn xajal ko kër ga netal na la kérok bi yent yàlla Muhammad yonne Bilal bolé ko tabarakallah ak Salman bolé ko ak Ali ibn Abi Talib ñu dem séti ko ñu fekk ko ci xal bu tiis waye bi yent bi ñewé sallallahu alayhi wasallam sallam seet si ko ni ko xalxama qul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xalxama làmmiñam mënatu ko wax mu ne soxna si kii ani woy juróom mu ne ko woy juróom góor génn àddina waaye woy juróom bu jigéen la fi dese ani woy juróom bu jigéen ndaw si ne ko génn ay at a gisuñu ko yenent bi yàpp leen ñu seeti woy juróom ba teg ko bët ni ko kaay wuyu Sayyiduna Muhammad mu ne ko fu mu nekk mu ne ko mi ngi ci kër sa doom bu ñu wax xalxama ndaw si ni man de xalxama dogoon naa mu àddina ak àllaaxira ñaanuma yàlla sax yowmal xiyaam ma tegoo ak moom bët yàlla atte bi ndaw si ñëwee ngir cofeelam ci sayyiduna muhammad ndax yenent bi ku mu woo nga wuyu ko sallallahu alayhi wa mu ñëw yenent bi ne ko kii sa doom la mu ne ko waaw am diggante ndaw si nettali ko fi mu jaar ak doomam xalxama yenent bi ne ko ndax mën nga ko jéggal ndaw si ne ko kii li mu ma def duma ko ko jéggal àddina duma ko ko jéggal àllaaxira keroog Seydina Muhammad dafa yebal saxaaba yi ne leen dem ngeen wutal ma matt boo leen indee matt bi ma wërale ko fi xam xam a tëdd ma jël essence sotti ci jël almet taal ko moo gën a oyof ci moom ëllëg yàlla di ko yóbbu safara di ko boole ci matt safara yi ndaw si yuuxu ni yaa rasuulallahi ndax da nga rey sama doom ndax dama ko bëgg a taal ndax dañu wax ni doom res la ci ndayam ndaw si wane yërmande yant bi ni ko danga koy jéggal walla ñu taal ko ngir mu gën a oyof ci moom ndaw si ni jéggal naa ko yent yàlla Muhammad ni ko vérifier sa xol ndax jéggal ma ko mu ne ko jéggal naa ko ci xol gu sedd guy ngir jëmmi yàlla ak sa jëmm ju tedd ji yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yent bi sallallahu alayhi wa sallam sëgg dey nopp xalxama ni ko yaa xalxama qul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xalxama ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ruuga dog ci saasa mu wuyu ji boromam mbokk yi boole ñu toppee ci numéro bii di ñëw incha allahu taala ñu àggale leen histoire fi xalxama mujje ak wayjuram ba ñu ñëpp ñu jàng ci xam ni kenn du wayjur te kenn feesul palaasu wayjur asalaamualeykum wa rahmatullahi taala yara ma fi damiri wa yasmau addan muaddu li kulli ma yutawaqau